Monsieur le ministre, je voudrais solliciter votre attention et vous interpeller à propos du tourisme religieux, qui, de mon point de vue, est le parent pauvre de votre département. Pourtant, Monsieur le ministre, je considère qu'il y a matière à vendre dans nos foyers religieux. D'ailleurs, au sein de chaque famille est mis en place un comité scientifique composé d'universitaires dont les sujets de recherche nous renseignent sur tout ce dont vous aurez besoin pour vendre cette destination. Monsieur le ministre, les, économistes du monde se sont emparés aujourd'hui de l'impact économique du Magal de Touba. Après, bien sûr, l'étude et la publication du euh, travail magnifique euh, réalisé par l'Université de Bambay sous la direction du professeur Lamine Gueye. Monsieur le ministre, quand un événement et relayé à tous les niveaux par la presse étrangère. France 24 qui fait une semaine pour parler du Magal, pour parler des événements religieux. Quand notre grande figure, Cheikh Omar, attire l'attention, euh, occupe l'esprit et la considération des Français jusqu'à ce qu'on fasse revenir son sabre je pense qu'il y a lieu de ne considérer ces foyers. Il y a matière à vendre et yaakaar naa ne loolu mënul lu dul yokku nu ndax am naa habitude di wax éducation nationale nañu jël suñu grande figure yi dugal leen ci curricula yi loolu mooy defar jikko yi loolu mooy ñu inspiré loo ci valeur yi loolu mooy tax ñun ñu xam ñooy kan parce que gis nga bis bu ñu xamul maam mag ñi ñooy kan bis bu ñu amul référence ci mag ñi du ñu xam fu ñuy teg suñu tànk te loolu day gën a wàcc rek jikko yi nga xamee ni ñoom président amoon nañ ko di ko sàmm ba tax bu ñu dajee mu mën a ñu mën a waxante lu baax jikko yooyu ñun ñi gën a ndaw day génn ci ñun ñi gën ñu ñu gën a ndaw day gën a génn ci ñun te loolu li koy faj mooy ñu valoriser li ñu am suñ ko valoriser ba pare nag dama lay ñaan nga jaay jaay ko am nga loo jaay parce que boo demee ci biti nit ñi ci biti sax ñoo gën a xam suñu suñu kilifa yi màggalu Tuubaa suñu toogee une semaine presse étrangère bi di ko waxtaane di wax nu mu demee di wax fu mu jóge yow mi yore ministère du tourisme yaakaar naa ni mën nga koo jaay bu baax a baax a baax boo demee Touba li nga gis ñuy ñuy ñuy jébbalu di leen gis ñuy xaru nga dem Medina bàyyi gis liy jébbalu kenn xamul nu mu toll gis considération bi nga xam ne jox nañ ko Cheikh Omar ba bërki démb français yi ci seen bopp ñoom ñoo indi sabre boo gisee gants yi ñu yore di ko téye rek nga xam ne ñun lu ñu yor lu ñu yor mën nañ ko yóbbu fu nekk lu ñu yor mën nañ ko présenter fu nekk te man damay am métit su fekkee dañu yaakaar ni tourisme rek mooy plage yu baax yi mooy soleil yi te nit yi ñëw amuñ ci ñun benn considération du ñu sol lu ñu war a sol duñ def lu ñu war a def nga xam ne da tiit sax pour ragal sa njaboot gis leen parce que reflété wuñu benn image boo xam ne sunu image la loolu nag ma doon la ko dénku pour wax la ne la kër goo dem ay scientifique nga fa loolu la yàlla dogal cest à léegi kër gi yépp ak sëtuñu baax ni sax dañu am ay comité scientifique yoo xam ne ay a ko am di def ay thèse ci këru diine yi di wax kër si su mag ñi di wax seen jaar jaar muy inspirer nit ñi nga xamni legi léegi kër goo dem amna bibliothèque yo xamni publication yi nga xamni mo jël jëm ci kër yi mo moo ci nek barki dem suñu ben mbokk rek mu ngay def thèse ci Maroc mais am bi nga xamni moy imam rati bu dagana moko ko ni ko defal thèse ci Ablaye té te da fay tax nit ñi nit ñi nit ñi gëna xam mais yow aussi nga am information yu doy pour mëna jaay li nga wara jaay